di ñaan yàlla rek corona bi abal nu ñu sant yàlla jub ci Mouhamed ba pare ñu ngi ñaan yàlla corona bi na dem a dem ndax ñu yàq na suñu liggéey depuis daaw ba ren liggéey bi ñoo ngi sant nag meeru dëkk bi moom mi delloosiwaat marché ñu ngi sant bu baax ndax xam na ne ay jigéen rek la ni dañuy daal suñu doole ndar la ñuy jóge bu ñu xëyee ndar ñëw fii daan suñu doole bu ngoonee ñu ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu corona abal ñu daal suñu doole am ci maa la wax li neexaat na moom wax dëgg yàlla bu ñu bàyyee marché bi rek la neexaat kontaan nañ ci torop ci marché bi ñu bàyyiwaat am na fukki at ak nangam fii ci Ross Béthio lu mu bi nu ubbi kontaan rek lañ ci def ndax ñu mënuñu jaayee fenn ko dañuy ñaan yàlla nag yal nañ fi yàgg den fekk waaw yàgg lool den fekk leen rek moon ci naqari mooy ñu dañ fi yàgg dañu bëgg ba la ñuy daggal kenn place ñu daggal nu ba pare ndax ñu dañu yàgg am nañu fukki at ak benn wala fukki at ak ñaar waaye dañoo bëggoon bala ñuy daggal kenn place ñu daggal nu ba pare ku ñu daggal doog leen daggal waaye bu ñu nee marché dimanche luuma rek la am loolu daf ñuy xaw a naqar loolu rek moo fi naqar du leneen loolu rek nag moo fi naqar. ah tey de moom tane na rek waaye day doogay commencé dañuy sant yàlla rek day doogay commencé ndax door boo gis day sew man na ko door boo gis day sew dañuy ñaan yàlla yal na barkeel te yàgg fii ñu. waaw booba kay moom yëg nañ ko moom. bu ñu yegsee ñun ay defu ñu mën a ko ne toog seen dëkk ñu toog ñu dëkk nag ba ñu ubbi ko ne nag nañuy ñaan yàlla corona bi yal na fi yàlla toxal muy dem di dem di dem te bañ a des place yi dong la ñu mën a jàppale mën daal dañu bëggoon bala ñuy daggal kenn rek ñu jàppale ndax daggal ñu bañ bañ seet ni kii dimanche ñëw bañ kii ni samedi ñëw ndax yi fi am fukki at ak benn ba am fukki at ak ñaar kon kon bu ñu suñu sago ñu ñu jox ñu fee place loolu rek lañ fi bëgg. waaw sant yàlla rek ba yàlla comme que yàlla def na jàmm ñu ubbiwaat si jàmm ñu ngi santaat yàlla bu baax parce que ku toog atu yàlla liggéeyoo moom xam naa ne métti na métti na trop mais nag parce que tamit euh, ñun dafa mel ni dañoo xawoon a fàtte ñun ñun ñi nga xamante ni ñun doon dox ci muuma yi parce que atu yàllaa ngi mën na ne daanaka dañoo tëdd rek. liggéeyuñu kon nag ñuy euh, ñu ngi santaat yàlla ci autorités yi ban ubbiwaatee euh, yoon yi ba kenn ku nekk mën a doxewaat ay soxlaam ba luuma yi mën a commencé waat ban mën a commencé waat di liggéey bon xëy na nag corona bi jaar na fi ñun moom xëy na dafa mel ni président daf ñoo fàtt ñun marchand ambulant yi ak ñu ñuy daa dem ci luuma yi parce que depuis lors ñun dégguñu suñ ndimbal yi ñu doon dégg bopp ñun gisuñu suñu bopp xëy na nag xëy na yu bees yi ñuy ñuy waxaat xëy na danañ si jot ñun ñu ngi ci sàkku ñu ngi sàkku président bu ñu fàttee si ndimbal yu bees yi nga xamante ni mi ngi koy waaj a joxewaat parce que toog nañ un an mën naa ne ñu tey jii mooy suñu première luuma bu ñu nga xam ne moom lañ commencé fii ci Ross Béthio di ñaan yàlla nag yeneen yi si toppaat yëpp avancé daal ñu continuer ko waaw di ñaan yàlla nag euh, mbas mi gaaw jugee fii parce que sonal nañu mbas mi daal sonal nañu torop ñu ngi ñaan yàlla daal mu gaaw jeex fii ba kenn ku nekk mën a doxalaat ay activités ñu ngi leen di sant bu baax. di nuyu kilifa yi di nuyu monsieur le maire di nuyu représentant yi mu fi teg te di leen sargal. di kontaan nag ci vraiment ni ñu taxawoon nit ñi te di ñaan yàlla mbas mi fi taxoon lépp na fi daal jóge si te yàlla def fi jàmm ubbi fi tool yu bëree bëri ci barke Yonent bi sant rek àddina moom lu mu mën doon rek yàlla moom moo dogal rek moom lu mën a am rek ci suñu borom la jóge rek wërsëg moom tegul fenn am yàlla jàpp ñëpp daal ci barke Mamadou. nuyoo bi borom dëkk bi monsieur le maire ma ma jóg mais di rafetlu ouverture bi marché bi parce que di ñaan yàlla mbas mi jeex fi daal bu ñu amoon lu ñu gënal sax moom dañuy continuer suñu liggéey daal ñu ñu ñu ñu gisee daal moom bal naka daal jawantu waaw marché bi moom manqué woon nañu mais te te bi na moom dëgg yàlla am nañu bu ñu sax amoon lu ñu gënal ah ñuy tijji parce que altine moom mooy kii départ moom mooy départ suñu liggéey daal altine moom semaine bi yëpp ah bu ñu tëddee deux jours altine moom suñu départ bu amoon lu ñu gën a daal moom altine lañuy dañuy tijji suñu marché bi waaw amuñu lu ñu gën loolu daal moom la ñu wax mais di ziar ñëpp nag président marché ah, waaw salaamaaleykum Omar ñoo ngi lay gërëm di la sant ak sa teewaay si biir marché di rafetlu liggéey di rafet bi ngay liggéey si dëkk bi

waaye nag dina am benn bis boo xam ne daan ko jàpp aussi di koy def nettoyage bi marché loolu du dañ bu mu amee vraiment nga xam ne président commission finance di Mar Ndiaye maire bi dégg liggéeyu marché bi mu ànd ak équipe am mi ñun ñii bu mu amee dellu si na euh, affaire yi si marché bi pour nu waxtaanee nan ñu def ba ibbiwaat luuma bi ban bis ñu ñuy bu ñu dajee woo convoqué ñëpp.

ndax tey jii ku amul njëgu ñaar téeméer boo amee njëgu téeméer daa am loo jënd si luuma bi ku amul njëgu junni boo amee njëgu ñeenti téeméer daa jënd si luuma bi vraiment muy dimbali population euh, population bi soxla woon ko bu nekk see maire maire euh, ànd si ak euh, ñoom ñëpp pour nu jàpp suñu bi marché luuma vraiment mooy mooy premier tey pas bu ñu commencé te incha allah du arrêté même nettoyage yu marché bi daanu ko jàpp chaque altine bu soobee yàlla daanu xëy nettoyé marché bu mu ba mu set buñ marjé nit ñi euh, euh, commencé wax sen activité lool dal mo indi mooy mooy sabab li vraiment population bi ñu ngi dugg di genn rew nak bu dugay tabax ñu ñep ñu and tabax du maire rek kay tabax maire ak su préfet ak du président rek mooy liggéey rew rew population bi yépp ku ne na nga def bay sa war ku ne bu bay sa war rek ñu liggéey suñu dëkk mais bu ñi dé bay ñi di ñu bay war ñi di yaq dëkk bi du mës développer man Omar di laa ma si yu may wax di gërëm di la sant di lay ñaanal yàlla bu defal ak wér liggéey bii ngay liggéey njëriñ la si population Ross Béthio njëriñ si département Dagana njëriñ si région ndax ndax day dem fu ne si adduna bi day dem ba ba ba Europe ñun ñi ñuy déglu ay interview kon jërëjëf yàlla na yàlla guddal sa fan Eh, waaw waaw waaw marché bi bu eh, bu baax a parce que marché bi fii nii ñëpp ci gis seen bopp technique technique mooy loolu quoi léegi nag ñi ngi ñaan jaaykat yi fi nekk yëpp nag ñu ñëw li nga xamante ne nii déggoo dañ ne lu ñëpp nañu ñëw di def lu mu bu neex macha allah ñu seen bopp parce que am important la quoi effectivement ñun tailleurs yi moom déggoon nañ ne am na ndimbal mais boobu ba léegi nii Euh, suñu daal nag actuellement peut-être que am na xam ñoo xam ne jox nañu mais ñun moom ci suñu wàll quoi jaaxal nañu lool waaw dañu ñaan nag ñu ñu tayal bu baax fii ci Ross Béthio ñu lu am doole fii ñu ngi ñaan loolu daal population Ross Béthio leen di di leen ziar di leen masu coono di wax monsieur le maire vraiment ñu ngi kontaan si marché bu mu indiwaat parce que marché lu mu vraiment moon nañ ko parce que day doxal dëkk bi mais dañoo bëgg tamit am même temps ñu xool marché bi monsieur le maire nga jàpp ñu aménagé waat marché bi marché bi gën a mën a am yoon parce que marché bi dèjà dafa xaw a désordre foog ñu jug si ñu jàppale monsieur le maire ñu xool ñu koy orienté ba marché man débat parce que ñepp ñoko bok parce que luuma day doxal dëkk nam nañ ko gan ñëpp ñu ngi leen di bisimil di leen ma soy ma soy waaw marché ne leeli fuddaati mhm. presse bi ne mhm. mhm. ko ami mbadi dum yakamti mu ngono fori wadde mara donc and hande Allah hoddirki kon non min beltima hen kadi forino wadde ko boy. wona hande fonno uddi min jetti Allah min jetti on min jaari on vraiment min beltima beltima fi ay dum kam ko rentade tan ay ko rentade tan waw hanko den yimɓe dentodirat tan kontina masse mumen jaaha lumumen mono foof kontodira waɗa expéci mum normal vraiment machallah alhamdulillah waw